alhamdulillahi wa salla abada ala allazi bihi lana alhuda bada sayidina muhammadin wal ali wa sahbihi sawin nawali wali mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu fu ngeen mën nekk ci àdduna bi di suivre seen télévision Tacko TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen baalu àq di leen baalu àq ñaan yàlla suñu borom boo leen jéggal ñaan yàlla suñu borom jaamu yi ak ñaan yi nga xam ne ñu ngi koy def ci weeru koor wu tedd wu màgg wii suñu borom nangul ñu ko suñ boroom defal ñu fekk ko ay at yu bëree bëree bëree bëree bëri xam ngeen ni seen télévision Tacko TV mi ngi ànd ak yéen ci tafsirul quran bu am solo ci li nga xam ne mooy weeru koor gi yëpp ñu nekkoon ci faatiha nag euh, defoon ci ay tomb ak leeral ba egsi woon ci wax ni fatihatul kitab mooy quranul karim ndax wax naa ni alquran juróom-ñeent rek a ci nekk te yooyu yëpp suñ boroom làmb nañu ko ci fatihatul kitab juróom-ñeent yooya mooy digle mooy digle te sun boroom digal nañu ci faatiha digal nañu ci faatiha sunu boroom digee na tey dig nañu ci faatiha sunu boroom tëkkoo na tey tëkku na ci faatiha sant na alxuraan canta ngi ci te canta ngi ci biir faatihatul kitab waaraate mu ngi ci biir faatihatul kitab waaye alxuraan faatihatul kitaab bu ma nee mooy alxuraan wax naa ni mbooleem li nga xam ni mooy ponki lislaam yu juróom yooyu nga xam ne moom la yonente boo xoon ni arkaanu islaam yi xam sa juróom yooyu yëpp mi ngi ci biir faatihatul kitab ndax mbokk boo ne alhamdulillahi rabbil alamin ba ko waxee rek tudd nga yàlla tudd nga baati seede yi te baatu seede yi mooy li jiitu ci li tax nit ki doon ab jullit te kon arxuraan ca biir arxuraan di nga ca fekk mun la faalam annahu laa te loolu ma ngi ca biir arxuraan mooy baati seede yi ñëwaat na ci biir fatiha mooy ba nga waxee alhamdulillahi rabbil alamin di nga ca fekk xaafisu ala salawaati al wusta kon wax na ni julli wax na ni julli farata la ci biir alquraanu karim waaye waxoon nañ la alquraan julli mënta wér te faatiha amut waxoon nañ la moom ci boppam moom mooy moom mooy moom mooy julli ñu koy tudd suratu sola waxoon nga ci jàngoon nga ci biir alquranul karim xuz min amwalihim sadaqatan tutahirum biha wa tuzakkihim loolaat fatiha ki nga xam ni mi ngi jàng fatiha wax ni arrahmanir rahim ku ne xam na ni arrahman yërmande la arrahim yërmande la te yërmande yooyu moo nekk ci biir azaka mooy yërëm néew doole gi jox ngir xéewal gi nga nekkee ak jàmm ji nga nekkee ak bànneex bi nga nekke moom it mu génn ca coono boobu fekk si la loola yërmande la te mu ngi ci biir fatihatul kitab waaye dinga nga wax ni walillahi ala naasi xajjul bayt ca biir alquran sun boroom moo wax ni aj moo wax ni aj moom dafa war ci ab jullit bu ko man benn yoon te loolu mi ngi ci biir alquranul karim kutiba alaykum siyaamu kama kutiba ala alladina min qablikum loola itam suñ borom subhanahu wa taala tënkal nañu ko ci biir li nga xam ne mooy mooy li nga xam ne mooy fatihatul kitab wax naa la ba nga alhamdulilahi rabbil alamin faalam annahu la ilaha illa allah tudd nga baati sedde yi ba nga xaafisu ala salawaati wa salaati wusta di nga wax ni alhamdulilahi rabb ba nga waxee rabbi rek yaa nga ci julli ndax rabbil alamin mooy ki yar julli di ki leen di defar ki leen di tàggat ki leen di jëmale ci aw yiw te julli loolu lay jàngale loolu lay tegtal loolu ko tax a jóg xaafisu loolu ko tax a jóg inna salaata tanha anil fahsaa'i wal munkar wala dikrullahi akbar wax naa la zakat ba nga wax arrahmaani rahim yaa nga ca koor ga ci yërmande ndax ni nga woore mar xiif di nga jàng kat bu ëllëgee boo gisee kuy sàkku lu lekk wala koy sàkku lu naan nga yëg ni maroon nga xiif nga yërmande googu mooy arrahmaani arrahim boo waxee maliki yow mi diin yaa nga ca zakat yaa nga ca az zakat wala yaa ngi ci xajjul bayti ndax jublu nga yàlla sunu boroom subhaanahu wa taala waaye itam di nga gis ni jàngal nañu imaan jàngal nañu islaam jàngal nañu ihsaan moom faatihatul kitab jàngal nañu xaaji diine yi mooy imaan islaam ak ihsaan jàngal nañu ko na ba nga waxee alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmi diin yaa ngi ci biir al iman yaa ngi ci biir al imaan sant yàlla nangu ni yàlla moomu mooy rahmaan mooy rahim nangu ni yàlla moomu mooy yàlla mi nga xam ni ëllëg yomal xiyaam bi su payanto ba moom rek moo fa am kartan moom rek moo fay buur moom rek moo fa mën a fayee moom rek moo fa mën a xañe loola yaa ngi ci biir al iman ba nga ne iyyaka na'budu wa na nasta'in yow rek la ñuy jaamu yow rek la ñuy dimbali koo ngir jaamu la su boobaa yaa ngi ci biir al islam waaye ba nga ne ihdina sirata al mustaqim sirata alladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wala dhalin yaa ngi ci biir al ihsaan kon fatiha jàngal nañu xaaj yi xaaji diine yi fatiha jàngal nañu ko waaye fatihatul kitaab mbokk jàngal nañu relation yi relation yi relation yi nit ki relation bi am digganteem ak boroomam subhaanahu wa taala nit ki relation bi mu am digganteem ak diineem nit ki relation bi am digganteem ak ñeneen mbokki nitam loolu yëpp fatihatul kitaab jàngal nañu ko ba nga ne alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmi diin set nga set nga am nga imaan nangul nga yàlla set nga yaa ngi ci imaan gu wér lépp luy bokkaale luy taxal luy jaxasoo ci sa biir lu bokkul ci yow loolu dàq nga ko loolu dàq nga ko waaye ba nga ne iyyaka na'budu wa iyyaka na defar nga sa digganteeg sa borom defar nga sa digganteeg sa borom ndax nangul nga ni ko yow képp dong rek laay jaamu te duma jaamu keneen waaye nangul ko ni ko ni yow rek képp dong laay dimbali ko te du ma saako ci ndimbal ci keneen su boobaa defar nga alaaka bi dox sa diggante ak sa borom subhanahu wa taala waaye bi nga ne ihdina siraatal mustaqim yëgal ni mbokk defar nga sa diggante ak sa mbokk ndax waxoo ni yàlla ihdini da nga ni ko jubal ñu jubal ñu booba defar nga sa diggante ak seen mbokk koo yéene yiw mu yéene la yiw bu la ko yéene wutit ñàkk safaan ba lay yéene safaan du la du la wàññi dara ndax ku bëgg jàmm da nga yéene ñëpp jàmm bu ñëpp mënta am jàmm it yow mi leen yéene jàmm di nga am jàmm kon di nga yëg ni Fatiha defar na jàngal na la alaqaat yi jàngal nañu lan mooy relation yi ak nan lañ koy defaree ak nan lañ koy defaree waaye di nga yëg ni Fatiha su ma la waxee ni mooy alquran di nga yëg ni suñ boroom subhanahu wa taala kutubu samawiya yi ñuy wax téere yi sel li ñuy wax les livres célestes téere yi nga xam ne yàlla moo ko wàcce mu jóge ci moom téeméeri téere la ak ñeenti téere mu wàcce ci sunu maam aadama fukk wàcce ci yonent yàlla siisa doomu sunu maam aadama juróom fukk wàcce ci yonent yàlla idris fanweer wàcce ci yonent yàlla ibrahim fukk wàcce tawret ci moussa wàcce zabur ci daawud wàcce injil ci sayyiduna isa wàcce alquranul karim ci ki nga xam ne mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye dañoo wax ni mboolem yiiw mboolem sekare mbooleem leer anwaar ak lasaraar yi nekkoon ci téere téeméeri téere yooyu ma njëkk a yooyu yëpp suñu borom mi ngi ko dëxañ ci biir tawret ak zabour ak injil waaye mboolem lanwaar ak lasraar yi nga xam ni moo nekk ci biir tawreet zabour ak injil suñ boroom mi ngi ko dëxëñ ci biir alquranul karim moo tax ba alquran ñëwee rek yooyu taxawatut alquran léegi alif lam mim dalikal kitaabu laa rayba fii moom rek mooy téere bi yaa kitaabal karimu innaka al kitaabu wa fii ka xaala dalikal kitaabu waaw moom rek mooy téere bi moom alquranul karim kon mboot yëpp yi nekkoon ci téere yooyu téeméeri téere ak ñett yooyu mboot ya leer ya ak secret mi ngi ci biir alquranu karim waaye mboolem leer yi ak secret yi nga xam ne moo nekk ci biir alquranu karim mi ngi waat ci biir fatihatul mi ngi ci biir fatihatul kitab waaye mboolem leer ak secret yi nga xam moo nekk ci biir fatihatul kitab mi ngi ci biir basmala gi te mooy bismillahi rahmaani rahim kon loolu yëpp da lay wan wax dëgg fa yàlla yaa ngi jàngi fatiha chaque jour waaye est ce que ngi koy bàyyi xel est ce xam nga ni fatiha nii la toll est-ce que xam nga ne xaatiha nii la mel est que xam nga fatiha nga xam ne suñu borom subhanahu wa taala kenn du moom kenn du mel mooy jël lu ndaw dëxañ ci lu dul jeex mooy jël lu ndaw dëxañ ci lu dul jeex moom yàlla sunu borom jalla jalaaluhu azza kamalu kon secret yooyu yëpp mi ngi ci biir fatiha waaye secret fatiha yëpp mi ngi ci biir bismillahi rahmaani rahim lu am solo la bismillahi rahmaani rahim boo ko dee xool moom mala bismillahi rahmaani rahim fukki araf la ak juróom-ñeent Euh, malaaka yi nga xam ne ñooy gàdde sawara mooy ñooy gàdde sawara mooy zabain yi nga xam ne ñooy gàdde sawara loolu la yàlla waxoon ne alayha tisata achar fukk ak juróom-ñeent lañ kon saa yoo jàngee faatihatul kitab araf bu nekk boo jàngee bismillahi rahman rahim araf bu nekk fegal na la benn malaaka ci ñuy gàdde sawara kon yow suñu borom dina la musal ci sawara ñen ci musal sawara waaye boo xoolee bismillahi rahmani rahim dafa firi turu yàlla yi yàlla yi nga xam ne moom la indi ci alquranul karim ndax yàlla suñ boroom subhaanahu wa taala ajjuma yàlla suñ boroom am na ñetti junniy tur ñetti junniy tur yooyu dañoo wax ni junni ya malaaka yi rek ñoo ko xam benn junni ba malaaka yi rek ñoo ko xam malaayikatu rahmaan rek ñoo xam benn junni ba ñu ni beneen junni ba jinne yi rek ñoo ko xam ñu ni ñetti téeméer ya ca des moom la dëxëñ ci ci tawreet muy téeréb su yon sunu yonente yàlla Muusa ñetti téeméer ca des mu dëxëñ ko ci téeréb zabuur muy yonent yàlla daawud ñett téeméeri ci def mu dëxëñ ko ci injil muy téereb yonent yàlla Iisaa ñu ni téere juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent nag mooy yi nga xam ne moom la indi ci biir alquraanul karim moom indi ci biir alquraanul karim waaye yooyu yëpp wëlbatiku waat daje nag ci biir alquraan al karim kon li nga xam ni mooy fatiha wala bismillahi rahmaani rahim boog moom dañuy leeral li muy gàtt-gàtt mbooleem tur yàlla ndax ba nga waxee baaw bismi rek donte alif ga zaayid la ca sax dañ ko caa dolli teewul ahad ñëw na teewul ahad ñëw na bu la neexee allah ñëw na bu la neexee bu la neexee bu la neexee ba nga ne bismillahi rahmaani rahim badiya ñëw na basir ñëw na euh, bahaa u ñëw na ñëw na ba nga ko waxee yooyu yëpp dugg na ba nga waxee siin nga salaamun ñëw na ba nga waxee siin nga salaamun ñëw na kon loolu da koy tegtale ba nga waxee miim nga Mourni ñëw na Malik ñëw na Malik ñëw na yooyu yëpp mën nga koy topp ba mu ba jeex tàkk ba nga dikkee ci Allahu ga ahadu ñëw na Allahu ñëw na Hadi ñëw na Latif ñëw na Latif ñëw na ba nga ci Rahmaan nga Rahim ñëw na Raouf ñëw na noonu nga koy toppee ba yëg ni bisimilah rahmaani rahim ndekete mboolem turu yàlla yi bisimilah rahmaani rahim euh, firil nañu ko. bisimilah rahmaani rahim leeralal leeralal nañu ko kon loolu yëpp dalay wan ni nga xam ni noonu la faatihatul kitaab toll dalay wan ni nga xam ni noonu la faatihatul kitaab toll bisimilah rahmaani moom mala wax ni ci la alquran tënku leer yi ak secret yi yonent bi ci isra ak mi'raj bi ko yàlla yéegalee ci visite bu rëy boobu fatadanna faddala fa kaana xaaba xawsayni aw adna nga xam ni jege na suñu boroom lu toll ni xala ak xocc ak xocc ñi xam lan mooy xal fet diggante ñaari kii ni ñuy jege yantoo aw addina aw àddinaa nag kenn xamu ko kenn xam kenn xamul yàlla dafa jël yonent bi roof ko ci biiram wala déet kenn xamul yàlla dafa jël yonent bi sësale seen ñaari bëti bu doon yàlla am na ko wala déet kenn xamul yàlla dafa jël yonent bi dugal ko ci biir yaram wala déet bu fekkoon yàlla am na yaram waaye aw àddinaa kenn xamul lan la waaye ca foofa yàlla xéewale na yonent sallallahu alayhi wasallam mu visité àjjana visité sawara bi muy dem nag ànd ak jibril sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni gis na ñeenti sewnde sewnde mooy ndox muy daw buñ ko doon wax mën nga wax rivière wala kanaal boo xam ne ay ndox da ciy jaar di dem wala ay tuyau yu mel noonu boog pour nga gën koo xam mu gën laa jege ay sewnde ndox yu yol di dem mu ni benn ba ma ngay wal di génne soow benn ba ma ngay wal di génne sàngara benn ba ma ngay wal di génne ndox benn ba ma ngay wal di génne li nga xam ni mooy lem yonent bi nee na ma laaj jibril ni ko sewnde yi fan lañ jóge fan lañ jóge jibril alayhi salaam ni ko day xam naa fan lañ jëm ndax ña nga jëm kawsar mooy déeg boobu la sa borom digoon inna ataynaakal kawsar nga xam ne bu ñu egsee ci suuratu kawsar dina gën a leer waaye nag fu mu jógee xaw ma ko xaw ma fu mu jógee allahu akbar xaw ma xaw ma ci xam-xam la bokk xaw ma ci xam la bokk laa adri nisfal ilm imaam malik nee na xaw ma mooy genn wàllu xam-xam waaye lu ñu laaj nga ne xam nga ko lu ñu laaj nga ne di ko tontu lu ñu wax nga ne xam nga ko ko doon ko nitu mënul nekk mënul nekk jibril ni ko xam naa fu mu jóg fa mu jëm waaye fa mu jóge xaw ma ko kon yàlla xamal na ko fa mu jëm mooy kawsar la jëm waaye xamul fa mu jóge waaye am na humilité am na humilité wu ni donte moo gën ci malaaka yi donte mooy ambassadeur sun boroom donte mooy aminul wax yi li yonent bi di xam yépp ci moom lay jaar ñëw ci moom teewul mu ne yonent bi xaw ma ko xaw ma ko ndax da ko bëgg a xam yonent bi ne ko waaw mu ne ko wala malaaka mi tax nga xam ko am na malaaka mu la ko mën a wax malaaka mi ñëw ni yonent bi gëmmal yonent bi dafa gëmm jekk-jekk ñu dugg ci benn xubba benn xubba ah par exemple benn cadre rek boo xam ne bu ñu def la tëj ko nee na bi dikkee taxaw ci bunt bi yéen salaay salaam nee na malaaka ni ma duggal ma ne ko du may duggee ana caabi ji mu ne ko caabi jaa ngi sa loxo caabi ji mi ngi ci sa loxo mu ne ko ana caabi ji mu ne ko waxal bismillahi rahmaani yonent bi nee na ma ne bismillahi rahmaani rahim buntu bi ni kàccat tijjee ko kon basmala foofu la mbir ma nekk yonent bi ne wut ci xubba bi wallahi ñeenti koñ la koñ bu nekk ëpp na àdduna ak li ci biiram nee maa nga gis ca miimu bismi ga ndox ma di ca sotti koo jëm kaw sar ca miimu bismi ga yonent bi nee na maa nga gis ca xëewu allahu ga al sakeer al sakeer ga soow ma di ca balle jëm kawsar nee na maa nga gis ca miimu raxmaani ga sàngara sa di ca balle jëm kawsar sàngara soosu nag boo ko dëgg bi sunu gaa yi ñoom wiskeeg yooyu gaa yi ji nag uh, zum sum yeeg yooyu gaa yi di naan bay tërëf déedéet laa yusaddauna laa yusaddauna anha wala yunsifun loolu la yàlla wax sàngara soosa doo ko naanee doo màndi bay jeex-jeexi du metti sa bopp ba ngay tëdd di nelaw waaw doo màndi bay tërëf tërëfi du metti sa bopp ba ngay tëdd di nelaw waaye nag ku naan fii ci sii xal seet na doo ca naan man naa am bu yàlla jéggalu dimbali la kenn du wax ne doo ca naan ndax loolu mbirum suñu borom subhanahu wa taala coobareem la waaye nag rafet nañ njort daal bañ a naan fii moo gën a wër xaar loola nga xam ne di nga ca naan muy neex di nga màndi te doo tërëf doo dóore doo saaga doo yuut tey sa bopp du métti ba foo tëdd nelaw fa sa bopp du métti fa tëdd dootoo wax ni secret bu ma ko naanee wàcc doo ko wax waaw sàngara soosa yàlla suñu borom ne yonte ne mu ngay génn ca miimu raxmaani ga nee na maa ngi gis lem nga di génnee ca miimu rahimi ga jëm kawsar kon bisimillahi rahmaani rahim ci la lépp nekk bisimillahi rahmaani rahim ci la lépp ci lépp nekk kon mbokk yi loolu mooy suratul fatiha loolu mooy màggaay bi ci nekk loolu mooy màggaayu li nga xam ni mooy bisimillahi rahmaani rahim ngay xool fatiha mbokk yi nga commencé ni bisimillahi rahmaani rahim wax naa la léegi la ci aju nga ñëw ni alhamdulillahi rabbil alamin mbooleem xaaji sant yi ñeel na yàlla sunu boroom subhaanahu wa taala mbooleem xaaji sant yi lu tax boroom xam-xam yi dañuy wax ni al gi ñi jàng naxu grammaire arab al li istigraqil jins la boo ne wal asri innal insana la fi xusrin waxoo nit ki da nga ni mboolem nit ñi mboolem nit ñi ñu ngi ci perte nga ndax alga li istigraqil jins la donte mu fa dugal na kuy nit waaye moo tax ba nga ne alhamdulilahi rabbil alamin dugal na mbooleem xeeti cant yi am mu ni mbooleem xeeti ñeenti xeeti cant yi am yëpp dañ koy delloowaat sunu boroom subhanahu wa taala yeen xaaji cant ñoo am cant gi jaam bi di sant boroomam subhanahu wa taala cant gi nga xam ne borom bi subhanahu wa moom lay sant ab jaamam cant gi nga xam ne moom la jaam bi di sant moroomu jaamam waaye cant gi nga xam ni moom la borom bi subhanahu wa taala di sant boppam di sant boppam ndax yàlla dafay sant boppam te loolu yëpp xëy xeeti xaaji cant yooyu ma la wax mi ngi ci biir alquranul karim xeeti xaaji cant yooyu ma la wax yëpp mi ngi ci biir alquranul karim ndax yàlla ba mu bindee ba pare dafa toog daan ni alhamdulillahi lazi xalaqa samawati wal ard boppam la sant sant na yàlla mi nga xam moo bind asamaan yi juróom-ñaar bind suuf yi juróom-ñaar moo bind asamaan yi juróom-ñaar bind suuf yi juróom-ñaar loolu ci mbooti faatiha la bokk sax juróom-ñaari yàlla lu bari secret yu bari ci juróom-ñaar la ko tënk juróom asamaan juróom-ñaari suuf juróom-ñaari sawara juróom-ñaari guddi juróom-ñaar juróom-ñaar du jeex safaak maro juróom-ñaar tawaaf juróom-ñaar juróom-ñaar te lépp yàlla da cee dénk da tënk li nga xam ne mooy da cee dugal li nga xam ne mooy ay ay secret ak i kon yàlla sant googu mooy sant gi yàlla di ja yàlla di sant ab boppam mooy alhamdulilah si xalaqa samawaati wal ard waaye cant gi yàlla di sant moo ab jaamam mooy ni'mal abdu innahul awab ginnaaw ba mu la sàkkee may la kàttan may la wér may la am xel may la ay gët ngay gis may la gémmiñ ak làmmiñ wooy waxee may la ay nopp ngay dégg may la ay yoxoo may la ay tànk yooy doxe nga jël loolu lépp delloo waat ko sa borom subhanahu wa taala boobu la la yàlla di wax ni'mal abdu innahu awab loolu la waxoon yonent yàlla ayub waaye nag al quran al ibratu bi umumi lafsi la bi xusuusi sabab képp jaam bu melati ni ayuba rek dugg nga ci ni amal abdu innahu awab ndax dañuy wax al ibra bi xusuusi bi umumi lafs waaye laa bi xusuusi sabab duñu wax ni ci moom la wàccoon rek moom lay waxoon waaye képp ku melati ni moom yaa ngi ci biir al ibratu bi umumi lafsi laa bi xusuusi sabab kooku mooy cant gi yàlla di sant ab jaamam waaye cant gi jaam bi di sant yàlla alhamdulillahi rabbil alamin wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin ah daawaahum fiha alhamdulillah ah Uh, dawahum fiha alhamdulillah wa axir dawa an alhamdulilahi rabbil alamin waaye alhamdulilahi lazi hadana li hada wa ma kunna li nahtadiya lawla an hadana allah loola itam ak cant la loola itam ak cant la goo xam ne moom la jaam bi di sant boroomam subhanahu wa taala waaye cant gi jaam bi di sant moroomu jaamam mooy li yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngale ma lam yaskuri naasa lam yaskuri allah ku santul nit doo sant yàlla ku santul nit doo sant yàlla nit li la yàlla defal du wàcc di la ko jox loxo loxo waaye dafa am fu mu koy jaarale ci say waajur ñu yar la tarbiya la jàngal la dundal la ba nga màgg da nga leen a war a sant ki la jox liggéey di la fay di la jàppale da nga ko war a sant ki la jàngal am xam-xam ko war a sant ki lay xalaatal di la jox am xel da nga ko war a sant ki yël yére may la da ko war a ki la may ndox nga naan yooyu yëpp yàlla moo la ko xéewale waaye daf ko am ko jaarale yonente bi ne la ku santul nit doo sant yàlla sa borom subhanahu wa taala kon xeeti cant yooyu mooy yi nga xam ni moom moo am xeeti cant yooyu mooy yi nga xam ni moo am waaye cant yooyu dafa am canti cër am canti jëf sant yi nga xam santi xol la santi xol la wama bikum min ni'matin fa min allah yëg gi ngay yëg ni mbooleem loo am rek yàlla suñu borom subhanahu wa taala moo la ko jox i'tiraaf boobu reconnaissance boobu ngay am yëg-yëg boobu loolu ak xeetu cant la waaye santu xol la santu xol la waaye nag am na cantu jëf i'malu ala daawuda sukuran i'malu ala daawuda sukuran bi nga xëyee taxaw julli ngir wan yàlla ni yaa ma may wér gi ma tax ma mën a taxaw kon du ma xëy rek dem bañ a julli am na mbokk muy saboote di wax naan euh, yàlla may la xéewal ngay nga nelaw guddi entière xëy julli ba pare bind ci sa ci sa whatsapp alhamdulilah santo allahu akbar wax na dëgg may la nga nelaw guddi entière nelaw yeew ci jàmm ak salaam sangu ndéeg julli woo de waaye ba nga pare da ngaa bind ci sa whatsapp alhamdulilah alhamdulilah jëf jë la waroon a doon foofu du cantug wax cantug jëf la cantug jëf la danga waroon a julli ji sant yàlla sa borom ci may gim la may nga tëdd ci jàmm yeewu ci jàmm te am koo xam ne tëddul ci jàmm am koo xam tëddoon na ci jàmm yeewul ci jàmm am koo xam ne ba mu tëddoon na yeewut am koo xam ne tëdd na waaye ba mu yeewoo mënut a jóg dañ koo yëkkati am koo xam ne ba léegi ma nga tëdd bëgg a jóg amagul ko ko yëkkati loolu yëpp nga war caa sant sa borom subhanahu wa taala yooyu yëpp defoo ko da ngaa xëy daal di eseti sa WhatsApp alhamdulillah te fekk julli woo santoo kon santuk jëf santuk xol cantuk jëf cantuk wax cantuk wax cantuk wax alhamdulilahi rabil alamin des na ko wax yéen sallallahu alayhi wasallam daan na alhamdulilahi lati tatimu tatimu salihat boo amee xéewal day wax ne alhamdulilahi lazi bi ni'matihi tatimu salihat maa ngi sant yàlla mi nga xam ne ci xéewalam ci kartanam ci la yàlla di matale mboolem yiw waaye su ko musiba dalee du gaan du jooy du yuuxu danaan alhamdulilahi ala kulli xaal ala kulli xaal de fa façon rek ñu ngi sant maa ngi sant yàlla sunu borom subhanahu wa taala waaye sant moo borom xam-xam dañ ciy wax ndax sant al euh, shukuru al muqayyad moo gën wala wala shukuru al al mutlaq moo gën imaamu Malik dafa jàpp ne shukuru al muqayyad moo gën mooy cant gu ñu tënk cant gu ñu tënk te cant guñ tënk rek moo nekk ci alquranul karim cant moo nekk ci alquranul karim keroog ba ñuy wax wa axiru daawaahum an alhamdulillahi rabbil alamin dañoo dugg àjjana ba pare kon dañoo sant yàlla ci dugg dugg àjjana ba ngay wax ne alhamdulillahi lis hadaana li haza wa ma kunna linahtadi yàlla dafa defal lim an hadaana allah kon rek mu am ci alquran waaye imaamu Shaafi dafa wax ni kon su boobaa loolu dafay nuru leneen yàlla nit dafa war a sant yàlla ci lépp waaye du sant ci li ko yàlla defal rek lii la ma defal sant naa ko ci lii du ko du def lool kon loolu mooy li ñu tuddee sukkur al muqayyad ak li ñu tuddee sukkuru al li nga xam ne mooy euh, mooy sukkuru al al mutlaq yooyu yëpp waaye li ëpp nag ci alquran mooy sukuru al muqayyad moo nekk ci alquranul karim mooy sant yàlla ci loolu mu la defal sant nit ki ci loolu mu la defal sant mbir ci lu sant ci nangam gi nga am sant ci nangam gi nga xam ni moom nga am kon loolu itam lu mat a bàyyi xel la lu am solo la kon euh, li nga xamante ni si mooy alhamdulillahi rabbil alamin ci biir fatiha moo nekk noonu ñu tuddee alhamdulilahi rabbil alamin ci biir fatiha moo nekk noonu te it cant gi nit war a sant ci alhamdulilahi rabbil alamin da caa bokk yàlla xéewale gim la nga xam ko nangul ko ba pare di ko jaamu di ko jaamu ndax dañoo wax ni yàlla am na ay aalam yu bëree bëree bëree bëri te yow yaa wax ni alhamdulilahi rabbil alamin te alamin googu yàlla wax ba def ko jamu muzakkar saalim googu yàlla am na ci lu mat trois cent soixante ci ay alam yow alam bi nga nekk rek moom nga xam waaye yàlla am na lu mat trois cent soixante alam te alam yooyu dañoo wax ni soixante yi rek ñoo ci xam yàlla sunu boroom subhanahu wa taala soixante yi rek ñoo ko ci xam te soixante yooyu ko ci xam euh, ñoom rek ñoo ci xam yàlla ba pare di ko jaamu ñi ci des ñëpp xamuñu yàlla jaamuwuñ ko kon yow sant gi ngay sant yàlla am na solo ngir yàlla xéewal gim la xéewale nga xam ko ba bare nangu ko di ko jaamu loolu mooy alhamdulillahi rabbil alamin dafa mel dañ may siñaale ni waxtu wi su fekkee dégg naa dafa mel ni waxtu wi day waaj a jeex waaw kon loolu mooy yi nga xam ni moo ci moo ci am te it rabbil alamin alamin googu suñ boroom tudd na ko ci alxuraan lu mat Uh, fanweeri yoon ak juróom-benn loola day tegtale itam màggaayu li nga xam ni mooy alhamdulillahi rabbil alamin kon mbokk yi ba tey ñi ngi woon ak yéen ci seen suratul fatiha sunu ñaareelu émission te ba tey saaru gàtt woowu ngeen tuddee saaru gàtt di ko jàng mokkal ko muy juróom-ñaari ay dong la ca nekk ci ay mboot ak i leer ak i secret jeexul xaajul te ñu ngi sunu ñaareelu émission ci seen tafsirul quran ci weeru koor gi ci Tacko TV kon ñu ngi leen di jox dig daje.